Saliou maa ngi nuyu di ziar di di nuyu Alé Fall son ak Abbas le grand patriote Abbas Pilor rawatina waa jeunesse Sadio maa leen nuyu di leen ziar di wax élection yi yéen jeunesse bi seeni élection la parce que bërki démb fii ngeen wàcc si mbedd mi laaj Macky ab tali fukki atu yàlla yéen a ngi jooy tali tuddee ko jéggi siraat te Macky Sall deful leen ko te xam leen ne Macky Sall 15 mois képp moo ko fi dese fii la Macky Sall jàpp seen i doom tëj leen dóor leen te lan ci problème ak waa teg kon Sadio ay gor ñoo fi nekk saajo kenn mënu leen jënd yéen ndaw ñi yéen lay waxal am leen seen fulla am leen seen fayda monsieur le maire Diomaye c'est un maire jeune dafa am avenir politique am na ngeen ko jàppale bu leen kenn fantoo bopp fas yi képp ko wooteel xamee na yaa ngi doole góor jigéen bopp fas yi képp ko wooteel xamee ne yaa ngi tardé département de Mbacké ki fi nekkoon dóor ngeen ko limbaar ngeen ko ñibbi na mook ay mbokk am fa mu dëkk tey jii ñëwaat nañ jàkkaarloo yéen di jéem a nax am leen seen fulla am leen seen fayda xam leen ne député yii bi suñ demee assemblée nationale am ngeen député digne de ce nom kon li may wax mooy jeunesse saajo am leen seen fulla encore une fois am leen seen fayda bu leen kenn jënd gor dafa neex te gor kenn du ko nekk ba pare di jaay gor yéen Sadio ay bañkat ngeen Sadio dëkk bañkat la Sadio dëkk bëgg lu baax la Sadio dëkk boo xam ne dafa gëm boppam kon ne leen gëm seen bopp parce que lépp lu ngeen am yéen a ko defal seen bopp kon encore une fois loolu rek laa amul lu may wax message boobu la amul lu may wax ay patriote ngeen nekk leen ay patriote ay gor ngeen ba ba ngeen di dee goree la ngeen xamee kon am nañ seen fulla am nañ seen fayda wiif Yewwi wiif Ablaye Wade wiif Ousmane Sonko ku wooteel Ablaye Wade wooteel nga Ousmane Sonko jaa ngeen jëf. ngi leen di nuyu di jiital bi monsieur le maire Diogomaye noo ngi lay nuyu nag ci turu intercoalition bi teree nelaw gaa yi wëndeelu ci fu ne muy l'intercoalition Wallu Sénégal maître Abdoulaye Wade ak Yewwi Askan Wi avec le président Ousmane Sonko. ñoo ngi ñëw tey Sadio ci dëkk bu nu miin ndax c'est pas la première fois ñëwoon nañ fi ci local yi waaye nu ngi ànd ak suñu tête de liste Cheikh Abdou Bara Dolly euh, l'honorable député. ñu ngi ànd ak monsieur le maire Abdou Mbacké Ndaw di candidat ànd ak Serigne Cheikh Thioro di candidat soxna su Mbacké mën nañ ko fee teewal moom it candidat la ak man mii di wax ak yéen Ndeye Astou buso Ndeye Anta Bousso mi ngi ci liste yi Basine également mi ngi ci liste yi waa Sadio góor ak jigéen magak ndaw ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay dina siggi ci bin fi duggee ndax digee aayul digee te wor aay te fii ñëwoon nañ fi ci élection locale yi ànd ak le candidat booba le candidat lay wax ndax c'était le candidat Diomaye Diaw ñu wër dëkk bi yëpp ngeen jox ko bopp jël seeni xob voteel ko ci turu coalition Yewwi Askan Wi ñu am fi score bu mag a mag a mag a mag Diomaye Diaw jaaraama ndax dëkk bi am na lu ñu wax nee nañu la nga leen doon dig ba tax ñu fal la maire six mois nga amagun ci mairie bi te nee nañ làmp yi bu tàkkee yow la bu nu amee ndox yow la liñ lee diggee woon ak ñoom matali nga ko machine yi firnde la ci ak ñu ko àndal kon nag digge aayul digge te defoo ko may gàcce ndax bu fekkoonte ne lañ waxante ak population Sadio bii di population bu am di population bu moom seen bopp di population boo xam ne kenn du leen jënd kon fii duñ fi sañ a taxawaat ba mbooloo mii ñëw jox ñu nopp ñuy wax ak ñoom kon nag waa saajo Macky Sall ministre am yëpp génne na leen xam na ne élection yi da koy ñàkk waxi na keesi réew mi yëpp yi war a liggéeyee réew mi xam ngeen ne ku ñëw saajo dëkk bu toll ni Sadio ak économie Sénégal lim ciy dugal ak marché lu maam bu rëy bi le ngay jaar ci mbedd yu métti yoo xam ne waxuma la mais li nga xam ne mooy daw yaram mooy tooli jàmbur yi la ñuy jaar ndax amul mbedd te tooli jàmbur yooyu ñoom ñu ciy bay yaakaar ci seen dund diggante ren ba déwén loolu cuune nguur gi fi nekk la ku cuune kii nu faloon jox ko réew mi doyloo ko mu war waa réew mi ñaari mandat defu fi dara mënul ku mënul dara da ngay baax ku tëlee da ngay baax ginnaaw tëlee ne ba mënul alal réew mi muy waqtam mënu ci dara di ko doxee ci réew mi ministre am yëpp génn di campagne la ma ci gën a metti nag ministre de l'intérieur yow mi nga xam ne la dénk administration nga wala organiser des élections nga wàcc ci terrain bi di politique ma ne waaye li ñu xaar ci moom na ko def ci les élections ndax élections yi da koy ñàkk ndax ma ne ni ñuy jënd li ëpp ci population Sénégal kenn du leen jënd ak ay gor lañ ay garmi lañ yu am valeur ñoo xamante ne nii léegi kenn dootu leen naxati ñëw ne defal ma ma defal la te defoo ko kenn nekk defati goog nit ñi da ñoom diggee ñoom def ko ñu ànd ak yow machine yii dama koy jël exemple ndax ku la dégg ndékki mooy bi ngeen ñu joxee mairie bi jogomaay mi nekk monsieur le maire te kéem kantanam mu koy def ngir dab seen bànneex village yi mu dig leen machine jox leen ku la dig ndékki jox la ko dig añ jox la ko bu la digee reer nga war koo gëm Macky Sall xam na ne jeexal na li ci des mooy nañ gën a góorgóorlu suñ bopp surtout jigéen ñi xam nga ñun li ma gën a métti ci Macky Sall mooy ñun la gën a gannaawal couche bi ëpp importance ci réew mi la gën a ginnaar muy jigéen ku ndaw ne jigéen ku ne mag ne jigéen ku ne góor ne jigéen te ñun la gën a ginnaawal ndax bu demee ba tey jii commune yi village yi coono yi nekkee di bojj ak a root ci teen yi ak a wal xam ngeen ne Macky Sall mii dara waruñu ci moom dul génne ko ci dëkk bi fan njiit yoo xamante ne nii danañu yore réew mi ba fu ne kenn ku ne ci réew mi sentir ne la président de la république du Sénégal c'est pour tous les sénégalais communes yeeg villages yeeg département yeeg ñëpp c'est le Sénégal donc ku ne fal tu es président de la république du Sénégal réew mi yëpp nga war a defal waaye faruñu la pour benn couche. kon loolu nañ ko jooyal suñu bopp nañ ko fajal suñu bopp duñu bataille électorale kenn fi may waxee nag mooy dama yoroon ku ma laaj ne ma. dañuy wax Ablaye Wade Ablaye Wade rek loolu nag jaral leeral ndax élection locale yi dañu fi ñëwoon avec la coalition Yewwi Askan Wi xam ngeen ne sous la coalition Yewwi Askan Wi ci lañ falee Jogomaay Jaw mii ndax ñoo gañe woon département bi bu ngeen gisee tey xob bu jaune bii aadawoo PDS photomètre Abdoulaye Wade nekk ci bu mu leen jaaxal ndax intercoalition mooy ñaari coalition yu dajale muy coalition Wallu bu maître Abdoulaye wadd ak coalition Yewwi Askan Wi bu président Ousmane Sonko. 46 département yam Sénégal 18 département ngi nii yoo xamante ne nii Wallu Sénégal moo fa yam yeneen candidat ya fa nekkal Yewwi Askan Wi dañuy demee sous la bannière de Wallu Sénégal moo waral di ngeen fa fekk bulletin Yewwi Askan Wi du am nag photo Ousmane Sonko. mais ñun département bi intéressé wuñu département bi ak les quatorze communes commune de Sadio bii bokk ci intéressé wuñu ndax pour permetre permettre Ousmane Sonko ñu permettre ko moom ay député au niveau du département lay fal du Mbacké Ndaw mii di fal sëñ Cheikh Thioro ak la nga xamante ne nii ki jiite liste bi muy sëñ Cheikh Bara Dolly sous la bannière de Sénégal ak soxna su Mbacké bulletin bi mooy tax juróomi député yi mën a jàll kon photo Abdoulaye wadd bi mooy fal président Ousmane Sonko may koy député yu bari ca assemblée nationale mais mooy permettre wàllu Sénégal Abdoulaye wadd moom ay député ca assemblée nationale. li waral loolu nag mooy cohabitation mooy dëkkandoo goo xam ne du doon ku ne toog nam la neexee waaye ñun coalition bu mag bi ko teree nelaw moom mag Sall ñoo koy buux xatal ko ba mu abal nu ndax sax li ko fi dese dafa bariwul ñun nag ay démocrate lañu. ci ay këyit la ñuy falee ci la ñuy follee kon na xam ne 2024 moo ko fi desee cohabitation force lay doon troisième mandat amatul droit am ko te bu ngeen permettre intercoalition bi ba ñoom majorité à l'Assemblée nationale lii ngeen nu jàmbat yëpp ten fas yéene koo def ndax bu njëkk un député député du peuple la woon le pouvoir législatif dafa amoon autonomie boppam bu ñu demee bay jàpp sëñ Cheikh Abdou Bara Dolly mii mu nekk honorable député Macky Sall di ko jàpp jaarale ko ci procédure yi mu ko war a jaaralee moom immunité parlementaire xam nga ne Macky Sall salfaañe na les institutions salfaañe na les ko koo xamee yaay buur di bub mi réew mi duñu jaami kenn kenn duñu noot kon majorité nañ ko jox intercoalition bi ñu doxal liñ war a doxal faj soxlaay communes yi ak département yi waaye surtout ñu permettre intercoalition bi ñoom ay ministre ci gouvernement bii di ñëw yor groupe parlementaire à l'Assemblée nationale désigner le président de l'Assemblée nationale loi yi fay dox rawatina ngóor jigéen yi dëppoo suñu diine ak suñu lislaam ak yeneen yi nga xamante ne yëpp yuy doxal économie réew mi la di yal lu li yàlla ci ci doomu aadama ndax doomu aadama ak ju ne am na lu mu yàllool kon foofu laay daanele samay kàddu di leen sant di leen gërëm ci mobilisation bi la asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi remercier bu baax monsieur le maire Diomaye Diaw ci mobilisation bu rafet bii bu am solo bii te mobilisation bii li ci ëpp ay ndaw la ak ay jigéen yu engagé ñu ngi nuyu bu baax Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha di ko jaarle sunu xarit sunu mag sëñ Abdourahmane bu sëñ Cheikh Gaynde Fatma bu Cheikh Moustapha bu Xaadim Rasoul wante di nuyu bu baax. sëñ Babacar Sy Mansour di ko jaarale ci sunu mag sunu xarit sëriñ Moustapha Sy mu Cheikh Ahmadou Tidiane yi mu sëñ Babacar Sy mu maam Seydi Hadji Malick ñu ngi nuyu bu baax waa Sadio ñu bëgg a xam le rek ne président Macky sàll doonut koo xamante ni da ngay masla ak moom ànd naa ak moom juróom-benni at ci ànd boo xamante ni li ko li daloon jogamaay mii rek moom ma ca daloon gëmloo ma ay programme pour Mbàkke dig di la dig di la dig ba mu jeex te du dara le 10 octobre 2018 directeur général PUDC dajale naa 14 yi nekkoon ci commune de Mbacké les maires ruraux maire Sadji bi ca la bokkoon ñu waxoon ne danañ defar diggante Taïf ak Sadio ak Gerle le 10 octobre 2018 mi ngi ci rapport wax ne danañu defar benn forage bu ànd ak fukki kilomètres extension ci biir Sadio pour connecter yenn village waxoon ne danañu jël juróom-ñaar fukki lampadaire comme yu mel ne ñi nekk Mbacké ak Touba ak Taïf andi ko Sadio mais gis naa ne réalisé nag lenn rek moo ko waral Macky xamul masla rapport de force la lànk ñaari at ne fay ndox ñaari at yooyu ñu lànk fay ndox moo waral SONES jël bor ci banque développement presque 12 milliards pour gas ñeenti forage Sadio pour transfert ko Mbacké ak Bambey ak Diourbel wante loolu it détermination population Sadio war naa taxaw ba wërësite gas ndox fi Sadio di ko transféré it te waa Sadio jariñuwuñ ci kon waa Sadio nañ jox loxo population Mbacké yoon wañ jaar ba ndox ma dafa ñëw ndox moom it waa Sadio jariñu ci bi may fi may daanelee Macky Sall leb na bu yàggul trois cent trente milliards ne def ci defar da ciy jënd li nga xamante mooy immeuble yi nekk fee ci jam ñaajoo te looji fa ministère yi wante def ciy defar ay autoroute naka ngeen mën a comprendre ne à part région de Dakar département de Mbacké moo ëpp lu muy contribuer ci koom-koomu Sénégal muy leb trois cent trente milliards di ci contribuer ci autoroute yi ñuy defar te alors que Mbacké Touba Sadio seeni tali baaxul mun te nekk loolu nag li koy saafara mooy ñëpp mobilisé wu 31 juillet ñëpp voté massivement pourquoi l'intercoalition wàllu Sénégal Yewwi Askan Wi ba ñu am majorité assemblée nationale xeex li nga xamante ni mooy disparité yi am ci dëkk yi mooy lan mooy nguur gi train de vie bi moom ñu wàññi ko wàññi yenn agence yi wàññi yenn direction yi wàññi yenn institution yi dugal ko ci njàng mi dugal ko ci faju mi dugal ko ci lekk gi dugal ko ci naan gi dugal ko ci sécurité moo def ko ci yoon wi dafa ko di moo tax ne kon doon nañuy gën a yaatal kon ñu ngi sant bu baax population Sadio di sant bu baax population la Taïf wante di sant bu baax délégation bi ñu àndal ak seen engagement ak seen détermination surtout jeunes yi ak ndaw yi kon honorable député Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly ñu ngi lay soññaat sa taxawaay rafet na Serigne Cheikh Thioro sa taxawaay rafet na soxna Fatma mooy sa taxawaay rafet na sëñ Assane Mbacké bu ma limee juum kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sàkku seen ñaan ak seen collaboration ak seen taxawaay ndax élection yi avenir ndaw ñi da cee tënk di nuyu imam yi di nuyu l'ensemble de chefs de village di nuyu jigéen ñi teg ko ci loxol suñu présidente suñu yaay soxna Ndeye Mbarem Loum di nuyu ndaw ñi di nuyu kilifa yi mbokki Sadio lay waxal mois de mais dama def sama déclaration ne soxla naa doon candidat commune bu Sadio ñu teg ci six mois ngeen teg ñu fi ndax projet bu leen indiloon programme bu leen indiloon su ma neexee sax ma ne bilan bu ñu fi defoon parce que ñun rek ñoo doonoon le seul candidat bu ñeme woon a taxaw yëkkati loxo teg bilan teg programme ñun rek ñoo fi mas a def sama kanam askan laa taxaw na ma ko taxawoon en janvier tàllal leen loxo ne leen fépp fu soxla askanu commune bu Sadio nekk dinaa fa dem ak lum jar dinaa ko def te duma leen masa trahir ngeen wóoluñu ba teg ñu fi ci foofu laa nekkaat naan leen fépp fu ñu jëm intérêt wu commune bu Sadio kese moo ñu yëkkati te intérêt wu commune bu Sadio fii la nekk intérêt wu commune bu Sadio ci carte bu jaune bi la nekk intérêt wu commune bu saajo ci inter intercoalition wallu yeewu ci la nekk ndaxte ñun la président Macky Sall en 2012 commune bu Sadio daf koo fal référendum ñëw mu gagné fi à 85 pour cent élection législative 2017 fii ci Sadio Benno Bokk Yaakaar moo fi gagné woon 2019 commune bu Sadio falaat ko à 73 pour cent. te Sadio nekk ci commune bi gën a reculé au Sénégal ñu ñëwoon tàllal leen loxo ne leen bennoo na fi jóg ci local yi lañ commencé parce que projet bi yemul ci local yi rek dañ ñëw leen bennoo doyal nañ ci ñu commencé au niveau local le 31 janvier ñu jëlee fii ñi jiite woon duma leen wooyee sax maire parce que bu boobaa dañ leen di jox cir parce que liñ nekkoon matuñu ko le 31 juillet mooy deuxième étape bi li des a kës néew ci bennoo maanaam fële ca assemblée nañ leen faxas 2024 ñu toj jàng yi mooy 2024 bennoo Macky Sall bennoo bokk yaakaar ak seen président Macky Sall abal ñu réew mi loolu mooy projet bi parce que dañuy ay ndaw dëkk ci dëkk bi te ñoom musuñu ñoon jëriñ dara dañuy mas di jëriñoo ñi ngi taxaw nag naan ñu tali mel ni daf ñoo jomb ñuy senegale kom tous les te askanu saajo lenn lañ leen di wax cinq ans lañ ñu fi teg balaa cinq ans yee jeex tali dina jaar fii ci Sadio bu buñ ma tegaloon kaamil ma waat ko avec ou sans Macky Sall parce que neexaluñ ko ci le 31 juillet département bu Mbacké wàllu moo incha allah ak yeneen département comme ça majorité bi mu daan am mu ñàkk ko en 2024 ñu jëlee ko fi fal président bi ñu mën a defaral suñu Sénégal mais li teew mooy le 31 juillet nañ fal la liste wàllu fii ci département bi pour ñu maanaam suñuy député ya ñuy xeexal fële au niveau national la jiñ amoon le 23 janvier la jooju yaakaar na mi ngi ci yéen ba léegi parce que àndu leen ak cuune àndu leen ak ab tapet ndaw nañ tuuti nañ nee nañ suñu at néew nañ waaye ñoom fit lañ nag fit waa Mbàkke amoon ba ne duñ fay ndox pendant deux ans ñoom ñu ragal mu le maire dama lay wax ne ñoom dix-neuf millions lañ dix-neuf lañ dépensé ci ndox mi jugee Sadio jëm Mbàkke mais di leen wax ne nag mbaaw waa Mbàkke naanagu leen parce que naanagu leen ful la jangeen am pour ñàkk fay ndox ful la ju raw jooju am naa ko man pour ndox balaa moo jugee Sadio dama ci am lu leer sonees bi ma leen njëkkee bind première lettre wuyuñ ma ma bindaat beneen wuyuñ ma ma samay tànk wax ñu ne ma dinañ ma woo ma demaat fa ñu woo ma ma ñëw jàkkaarloog tous les directeurs yi fa nekk ñu ne ma ndox mi ndoxam état suuf si suufas état la te gas nañ ko war naa jëm Mbàkke ma ne ko waaw gëm naa ne dina dem de waaye du léegi parce que fii ñun gisuñ ci suñ bopp du dem te allah allahu rabbi dinañ ci gis suñ bopp parce que am nañ fulla ji am nañ fayda ji la ña fi nekkoon amul woon fulla wala amul woon fitu def ñun am nañ ko parce que yaakaar yaakaaruñ ci benn politicien pour dund président Macky Sall man fii ma teew ci Sadio mënuma fee jëlee sama baat ca kaw man askanu commune bu Sadio ñoo ma fal pour cinq ans te incha allahu rabbi man maa fi toog ba deux mille vingt sept moo tax la président duma ko neexal duma ma ko raayal ginnaaw di leen wax ne jël leen la situation en mbir mi moom leer na Sadio xam nañ fi mu féete barki bu waa beneen camp bi ñëw nañ fi ànd ak seeni élu mën naa ko waxee noonu waaye délégation ba jóge woon Touba moo ëpp liñ fekk saa yi te kon yaakaar naa ne tungu ne du teew ñuy nataal saajo yeewu nañ saajo jël nañ situation bi en di leen wax ñi ngi leen laan ab Ablaye Wade ak usmaan Sonko ak leneen ak leneen waaye lima ma gëm moo président Ablaye Wade lim def fii ci Sadio Macky Sall defu moom lu leer la buñ dan xool ñaari bilan yi Macky Sall li fi Ablaye Wade def Macky Sall defu ko soto doo bii leen tiim nii Ablaye Wade ko fi ranran bi ngeen jaar bi ngeen di ñëw Ablaye Wade ko fi def mairie ba ma nekk man di liggéey Ablaye Wade ko fi def courant bi président Ablaye Wade moo ko fi indi affaire bi nag du Ablaye Wade nag pour mu leer pour mu leer nag affaire bi du Ablaye Wade affaire bi département bi la affaire bi Cheikh Abdou Bara Dolly la affaire bi Cheikh Thioro la affaire bi monsieur le maire la affaire bi soxna Fatma la affaire bi soxna Astou la affaire bi Jogomaay Jaw la kon en général suñu discours sax du toll nii parce que ni ma gars yi xamee mooy ñëw rek tënk ko ci trois minutes waaye bés moom nu mu toll rek lañ koy tollale ñi ngi jaajëfal bu baax a baax suñu gan yi di jaajëfal délégation di jaajëfal responsable yi jógee ci quartier yi ci dëkk bi di jaajëfal généralement toute la population de la commune de Sadio di jaajëfal la comité d'organisation bi ma taxawal lii en un temps record di jiital seen président Assane Diop mu yóbbu ñëpp euh, plus de trente personnes dem ba léegi ñoo réglé lii amul benn dërëm bu ñu leen fay nit ñi ñun duñ leen fay pour ñu ñuy liggéeyal du ma ne sax dañuy liggéeyal parce que fii ku fi nekk rek sa bopp a tax ngay ñàkk parce que suñu avenir ñoo ko war a jël en main fii ci Sadj ñun xam nañ ci dara suñu bilan ci 6 mois moo bilan bi fi gars yi def ci septembre su ma neexee sama loxo ca kaw heure bii daaw man sama mbaam mi dama daan rooti waaye ren gisaguma ko rooti loolu rek succès la pour loolu ñu mën ci continuer nag il faut ngeen jàppale ñu le 31 juillet ñu dóor dóoraat Sadio la liste wallu gañe fi gañe ci département bi Benno Bokk Yaakaar ñàkk majorité la ñi ngi jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp di baal ñëpp àq di baalu ñëpp tamit di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam di ñaan yàlla yàlla taxawu commune bu Sadio jërë ngeen ana waa Alaaji Maalik yi ana waa si Ahmad Bamba maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp da jiital nuyoo bi kilifay diine yi ak imaam yi di sant yàlla bu baax di gërëm si Ahmadou Bamba di nuyu sama xarit sama mag sëriñ Moustapha Sy di ko ñaanal ma yàgg fa te wér ki nga xamante ni moo yar yan bi nga xamante ni moo yan waajuram sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mi nga xamante nii ku ne xam na digganteem ak Serigne Cheikh Gaynde Fatma ak président Ablaye Wade monsieur le maire maa ngi lay nuy sur délégation bi ñu àndal yëpp ko coalition wallu ak Yewwi da nga xam ne lim nga délégation bi jërut ñu di si waaye monsieur le maire na sa dal te xam ni tey jii li nga wax ñu dégg ko fii waxi gor la waxi ko am jom la waxu ku bëgg dëkkam la waaye na la wér ni ñun ñii nga xamante ni ñooy candidat yi de du ngi ñu gën a gore muy man Cheikh Abdou Bara Dolly di Serigne Cheikh Thioro di Abdou Mbacke Ndaw di soxna Fatma ak soxna Astou Mbacke Abdou borom dër bi ñun de bu nga ñu tànnee ñu dem teewal assemblée nationale député de peuple la ñuy doon toogal fi département bi te Sadio ci lay bokk ñun suñu xel dal na ndax dañ doon wax ne bu ñu gañee Touba gañee Sadio gañ nañ Sénégal gañ nañ Touba ba pare gañ nañ département bi te xam naa ni garante ngeen ñu den gañee saajo kon bu ñu yeboo bu ñu demee tëdd nelaw xam ne dem nañ assemblée nationale delluwaat nañ fa ñun nag lañ leen waxoon moom la ñuy continuer di leen wax jogomaay monsieur le bi nga xamante ni tasa na man a yow état Milan mooy suñu première rencontre man a di yow sëriñ Cheikh Thioro moo ma jox sa numéro ma woo la nga déplacé wu ñëw seet si ma sama hôtel ñu waxtaan ñu ànd añanoo nga wax ma projet yi nga bëgg pour Sadio ma la monsieur le maire man ak yow ñoo bokk ay projet ndax man département bi rek moo mu yitteel kon lépp loo xam ne say projet la ci commune Sadio danañ si ànd ak yow accompagner la ba Sadio gis seen bopp ci doxalin bi nga xamoon la ñuy doxale yakaar naa bu fekkoonte nii sa intérêt bopp kese la ba tey jii wuy ji nga borom ba fas waaye kooku nag ma leen di wax tuuti loo xamante ni xamu ko si moom man naa ko xam nit la koo xam ni fonkul aw askanam nit la koo xam ni bëggul aw askanam nit la koo xam ni day tas yaakaar moo tax fasam wi fasu tas yaakaar la kon jàpp naa ni wan ngeen ko wan ginnaaw benn la si duma yi nga ko war a duma deuxième bi mooy la 31 juillet incha allah yéen waa Sadio ab tëli da ngeen ko am comme ni ko monsieur le maire waxee muy taw wala muy naaj tëli bi dana ñëw ndax ba may taxaw assemblée nationale di ko kaas booba jàpp mu woon ne dinaa ñëw fii pour sàkk seen baat la ma ministre bu wax mooy dañu ma Sadio amul population amul économique bu jar yóbbu tëli ma ne ko loolu boo ko waxee waxuloo dëgg ndax Sadio ay gor ñoo fa nekk ña fa nekk boo leen yóbbuloo tëli war na boo leen yóbbuloo tëli war na dinaa si xeex continuer di si xeex ngir que tali bi ñëw fi avant 2024 bu neexee yàlla incha allah loolu maa leen ko wax kon na ngeen maase jox te majorité soo Wallu ak Yewwi bu ñu amee ndam seen doomi Sadio yi dana leen dugal fi leen war dugal ndax borom mi xam-xam ngeen dañ leen a ginaawal ndaw ñi amuñu xëy jigéen ñi amuñu ay financement kenn jàppale wu leen amuñu ay li fu nekk su néew ci éclairage ak ndox yaag fi indi monsieur le maire ñu sa ginnaaw di ànd ak yow di accompagner ba fépp boo xam bëgg nga fa ñu jàppale si nag mooy lu jar a wax la mooy dégg naa ay wax yu baree bari ñenn ñi dañ leen joxob xaalis na leen wér barki démb am na ñu recevoir jox leen cinquante millions ñu quitté yeewi askan wi déclaré ne jàppale maanaam Macky Sall am na ñoo xam ni daan ñu fay fukki millions par weer ci Ablaye Wade ñu kiite foofu di jàppale Benno Bokk Yaakaar waaye man day gor laa lin ma dikk moo ëpp li leen jox lin di kii moo ëpp li leen jox waaye suñu askan mooñu ñor suñu dëkk moo ñu ñor lépp luñ ma teg lu nekk askan wee tax ñu teg ma ko luñ ma def lu nekk askan wee tax ñu def ma ko mais buñ ma doon rey dina ànd ak yéen buñ ma dee tëj dina ànd ak yéen ndax man yéen laa am na ngeen xam du ngeen weex si xeex bi dina ànd yow xeex ba li ngeen bëgg ngeen am ko bu ngeen dee xeex ndox mi balaa dem Mbàkke na Sadio am ba pare ndax mun ñu jël am ndox 19 milliards yóbbu ko Mbàkke bàyyi saajo Sadio ñu fi dëkk ay gor lan ay julli lan jaamu ko yàlla kese lan fi nekk ak liggéeyal mos ñoo tàllal loxo ñi nekkoon seen bopp tax ñu ne fi monsieur le ndaw nga lépp lu ñuy def ëllëg daana sooraale bu neexee yàlla monsieur le maire jogamaay ndax nit nga koo xam ne ku la jàpp jàpp gor ku la bàyyi bàyyi gor sëñ Cheikh Thioro na ngeen xam ni kii nekk maire bu Sadio nañu àndandoo équipe ànd tànk ba tànk lépp loo xam bëgg-bëgg Sadio la ñu mën see taxaw fu ngeen ma tàllal seen loxo dinaa leen tàllal sama loxo machine yi ñëw na li koy installé maa koy def commune bu ne dëkk bu nekk naa jox ñaar fukki junni muy quatre cent mille francs pour installation courant bi incha allah loolu nag ab tàmbali la encore bu tali bi ñëwee xale yi am liggéey ngeen installé machine yi dana leen jàppale si port agricole boo xamante ni bu neexee yàlla bu ñu gañee assemblée ni nga ko waxee noonu la ñooy tànn parce que premier ministre ñooy former gouvernement Macky Sall nag képp ku ko woteel woteel mu ngóor jigéen ndax bu ngeen gisee muy tëj imaam yi di tëj kilifa diine yi di tëj jàng sëriñu daara yi lépp projet ngóor jigéen la ngu day xeex li nga xamante ni maanaam mooy ñi nga xam ñoo xeex ngóor jigéen man bu ñu demee assemblée dinaa porter loi ngóor jigéen bi dinaa ko jàll assemblée nationale na ngeen xam ni loolu kilifa yi doon koo bañ te gis naa ne mi ngi tàmbalee daw si biir dëkk bi yéen bu leen kenn mën a jënd monsieur le maire ànd leen ak moom ab xaalis du mooy defar dëkk bi ngor mooy defar dëkk bi te boroomi ngor leen boroomi jom leen kon na ngeen bi nga xam président Abdoulaye Wade moo wax nekk nga xam député Yewwi Askan Wi Serigne Cheikh Thioro mii ci la bokk Abdou Mbacké Diaw ci la bokk Fan Mbow ci la bokk même waa Benno Bokk Yaakaar dañoo jaaxle tax ñu naan wax leen li si Yewwi loolu dañ leen di nax ak du joxe xaalis yu du ay communiqué naan li si Yewwi bi ko wate waxte Ousmane Sonko Ousmane bii nga xamante ni tey député yi mu tànn ci la nekk taalibi Serigne Touba yaa ngi nii waa kër Alaaji Maalik yaa ngi di campagne 2012 ba ngeen ko falee mu tudd Sadio mu kooku falaatee tam bopp na fi nekkal keneen waxi ndox keneen waxi ndox kon ngeen fexe leen fay nekkal askan wi comme ni ñu fi nekkale te bu ne assemblée sax bi dul fa wéet kon maa ngi nuyu baax leen gërëm war su sa war a mas ngeen jëf